ñu leen di fa mbokk internet yi tey ñu ngi fi seen émission bi nga xam ne yittewoo benn ponk boo xam ne bu am solo la ci askan wi ci Sénégal fii mbir yëngu lool jaaxal jaax lool am lu ko waral li ko waral nag du ay doomu aadama kese ndaxte borom xam-xam yi bëri dañuy faral di wax ne dëkk bi am na ñu fi dugg ñu fi dugg nag nekk ay mbindeef yoo xamante ni yu doy waar lañ di indi yëngu-yëngu ci biir dëkk bi ba tax nit ñi gis ñu koy gis loolu nag lan moo ko sokkee lan moo ko waral mbindi fii fu ñu cosaanoo fu ñu jógee ba ñëw fii Sénégal wala ndax sax Sénégal la nekk loolu yëpp lañ fas yéene waxtaan la ak ki nga xamante ni borom xam-xam la xel la màcc lool ci wàllu woowu koy duppee euh, Koromack Faye Koromack Faye euh, askanam euh, xam naa tamit bi mu wax ni tuuti ci li muy liggéey waaye wàllu woowu bokk na ci li ñu si gën a yitteel mais yeneen mbindi fii yoo xam ne wuute doomu aadama tey nañu doomu aadama di jur indi ay ji yoo xamante ni euh, mu ngi faagaagal askan wi rawatina askanu Sénégal xam naa ko xool ren dañuy dégg ci ay safara yu fi am dañuy dégg ci ay ñu fi ñàkk seen bakkan ci am yu yéeme yu doy waar euh, wala yoo xamante ni doy waar la kenn loolu ci lañ fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom ci lay liggéey da ci yëngu kon bi euh, Kéwoulo point info ak Kéwoulo TV yëpp ñoo ñëw fii seet si fas yéene waxtaan woowu ci wàll woowu ñu bàyyi la nga dalal ñu waaye ci jàmm ak salaam di rafetlu seen ñëw fii ndaxte man dama nekk doomu aadama boo xam ne lépp luy indi jàmm ci réew mi rek daf maa soxal fu ma nit woo ci jàmm ak salaam rek damay daldi yàkkamte gis ak jëmm jooju ndax man askan bi rek moo ma ñor donc kon dalal naa leen ci jàmm ak salaam di leen gërëm di leen sant. tey bu ñu doon laaj Koroma Faye ak ci la yëngu loo ñuy wax. bon Koroma Faye euh, li may yëngu bari na euh, commencé ci. dinaa yëngati ci wàllu mbéy ak sàmm. ah ci faj aussi aada ak cosaan ci ay feebar yoo xam ne parfois dafay jaaxal lu mel ni ay médecin te nekk réalité ma koy xeex aussi ca am na ñu bari dañuy daal di bëgg a nit ñi ne aada cosaan boobu nekkul ci réew mi te loolu ci ay nax la loolu ci ay nax la. loolu feebar. waaw kon maanaam lu mel ni wàllu rab. lu mel ni ay wàllu nitu guddi. xam nga ay mbiru saytaani. ay lu mel ni ay ñu sànni ay korte muy mel ni ay feebar yoo xamante ni gars yi dañuy dem duñu xam yan façon feebar la ñu teye leen ci hôpital yi bu ñu xëy làqu après ñuy naan ndogalu yàlla la te yàlla yàlla béy sa tool waaw euh, mu nekk feebar yu yéeme yow nan nga leen fajee yan pexe nga ci faj noo xam nga man dama bokk ci ñi nga xam ne dama daan déglu samay waajur te samay waajur dañ doon faj boo ko xoolee lii yëpp ay xobu garab la yoo xam ne dama koy wut ci àll bi xam aussi ni ma koy wuute na ma ko jànge ak parce que nit aussi pour nga faj dara il faut que nga gëm ko pour nga ma am mën cee génn njariñ faaw nga gëm ko ndax bu gëm ko moo tax ma am ci résultat te ba ma dee xale sama waajur dafa daan faj même garab yi may utiliser moom la daan utiliser di ci gis at résultat kon ci anam boobu rek laay sukkandiku nag di ci def am ay résultat ci lu baax a baax a baax a baax nag maanaam sa jël nafsi maanaam tey bu nit feebaree ak mu wóor la ni kii rab la am ngay def ba xam kii rab la am sax d' bon ni ma koy xamee. nga xamante ni ñëw na moom xëy na xamul sax li ko dal ñëw na rek yegg si yow yow nan ngay xam am. du ay ndaa lay samp fi ndax bijen yi ngay gis nekul ay bijen yo xamni ne liggey ko ñew fekk ko hmm. comme ni ngeen jàngee journalisme yi ngeen di def ba mën a askan bi noonu laa jàngee ni ci samay maam ba mën cee ràññee ku dof ndof normal hmm. ak ku ñu liggéey mu dof hmm. ak ko xamante ne dëmm ko jàpp wala jinni parce que jinni mooy rab dëmm nit la loolu il faut ñu ko bu baax baax nit mooy dëmm. nit njaay comme man ak yow nit comme man ak yow yow mën nga am feebar boo xamante ne njudduwaale la nga koy wéye doon nit koo xam ne da ngay mën loo xamante ne kenn mënu ko wala ni ku mel ni yow moo koy mën loolu dafa am. ñu jéem a leeral ci dënn dëmm boobu nit nit ak nopp ya nan la mun a nekk dëmm nan lan mooy waral ñu ne kii dëmm la par exemple. bon luy waral ñu xam ne nit dëmm la. Hmm. mooy nit dafa am ay sart yu bari yu nekk ci moom comme ni nga xamante ni nga li ñuy feebar bu ñu naan ngaana mhm. ak feebar bu ñu naan crise mhm. xam ni ñu koy waxee ci tubaab crise waaw nit ki jékki-jékki crise cardiaque wala fa non pas crise cardiaque maanaam épilepsie ah, waaw daanu crise nii voilà daanu crise yëpp ay xeet la te moom bu ñëw ci nit ki nit ki du mën a mhm. tere mu ñëw affaire ndëmm aussi mm-hmm. noonu la nekkee ci biir nit xam nga mm-hmm. di këpp ay gaal di def musiba mm-hmm. ay xale di foo mu sople ko benn ngelaw bu jóg ci moom parce que boo ko xoolee loolu yomb naa xam ndax sa euh, commande télé bi wala portable bi nga nii da def ni ah xam lu xew France dëgg la ah magnétisme boobu ni ko nit xalaatee nag hmm. même magnétisme mu ngi ci yeneen doomi aadama yi mais kenn ku ne ak matière bu mu lay dikke hmm. ñi dañoo am xam-xam pour dimbale nit ñi ñii nag dañoo am xam-xam maanaam seen xeetu feebar boobu ñu naan dem ñu rey nit ñi ci anam yu doy war wa wa xam nga lu ci lu ci doy waar mooy bu baat bi nga mujjee sax nit febar ñu ne ko lekk ci ñu ko sañ wax waaw dem nga ne nit la nit nu mun a lekkee moromu nitam. waaw mooy euh, dafa nekk débat bu compliqué. Mhm. tax na il faut que nga gëstu bu baax mbaa nga fekke ci lu bari pour mën a nangu maanaam da ngay dégg ñu ne diw jaana ko mat. waaw dañu xool jaan bi du doon jaan jaanu àll. Mhm. jaan boobu nit lay doon. nit ki mooy transféré ci boppam. Mhm. nekk jaan fekk xale yi di foo wala mag yi mu ne ko rab mat ko. xam nga nit njaay mën na soppale waaw nit mooy transfert wu nekk jaan dem mat nit daldi ko poissonné hmm. ñu ko topp loolu nag nuñ koy def mooy dañ koy fàtt ci pomo yi hmm. su ko fàttee nag ba nit ñi jàpp ne yow dee nga hmm. ñu dem suuli la foofu nag xam nga yàlla lu mu sàkk ci àdduna dafa bari ndax saytaani yaa ngi fi lépp a ngi fi dëgg la léegi nag ñoom am nañu seen pexe nuñ koy transféré ba lekk ko ñoom yaa ngi dégg mm-hmm. bu ñu xesee rey nit nag ba ñu suul ko nag nun mm-hmm. suñu xam-xam foofu la yem mais avant muy dem ñu koy suuli mm-hmm. wala dugalaguñu ko ci morgue bi wala amagul parce que parfois sax léeg-léeg am na fii lu bëri naan kormaak dafay dëkkil nit ku dee te du loolu man ñi nga xam ne ñoom laay dëkk dëkkil mooy ñu ngi fàtt suñ la fàttee nag yalla may na ma xam-xam bo xamne mën na xam ay quelque xobu garab yo xamantene suma woyé xalé yi ñooy nek ni gis nga fi ci biti gis nga nit ñaa tok fi rang donc parce que day am preuve ndax nit lu muy def lu tolo ñaar fu at chaque jour ñu di lay rang mhm. normalement nit ñi buñ daal won gis ay preuve du ñewati mhm. waaw mais lepp ci xobu garab ak ad ak ciosan ci mam yi dal nu ko ci sama mam. kon yo arrivé na nit ñu ne ki fatuna na dañ war kaa yow nga duggal ko waaw ay yone yone Hmm? ay yooni yoon. mën nañu sudeel ay tur. ay tur wala ay nit yoo xam xam nga ne fii dëkk diw mu ngi nii di dox man maa tax suuluñ ko day. Euh, xam nga def lu baax aussi di koy weer man souvent duma ma ko bëgg mais boo génnee xale yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak man. Hmm. Euh, mën nañ la ci jox ay ay firnde yu leer ci li ñu gis ndax man duma dee faral di naan def naa li def naa li def naa loolu day mel ni. Hmm. ay genre jaay sa bopp la ko dëgg la mais man ay preuve laay wane. Mhm. kii def na lii. Mhm. ndax waxaloo naa fi ay ay nit ñu ay jinne jàpp. Mhm. ñuy wax ba ñëpp di gis du man maay naan lii ñoom ñooy waxal seen bopp. mais pour ma toog di la naan def naa lii def naa lii def naa lii. loolu du am chance. xëy na boo baree fii tànk. di nga fi fekk événement boo xamante ni. dina la amal nit ñi njariñ. dëgg la ba tey ci wàllu dëmm boobu. Euh, ñun man boog man sama bopp laay wax dégg naa ko boog lu benn yoon lu ñaari yoon ñuy askanal doomu aadama ne diw dañ koy tooñ te généralement ñi koy wax tamit duñ ci am preuve parce que loolu man jàpp naa ne ku amul xam-xam comme yow mënoo mënoo ko xam. loolu lan nga ci mën a àddu. loolu askan mooy problème bi. waaw. Euh, nee naa la ne soo xoolee. Mhm. ci. li ñuy naan euh, jinni ak faru rab mhm. am na ci benn boo demee YouTube di nga gis benn nit koo xam ne dama ko bëgg leeral rek tuuti rek lañ ci cof mhm. ngir leeral leen ne ndaw si du dëmm mhm. parce que jinni moom moo ko dugg di koy waxloo ah. loolu aussi nit ñi ku jararañi la waaw kon am na xam ne duñ dëmm duñ dëmm te ñu tuumal leen loolu moo gën a gaaw duggal nee naa def loo ñu fa dëmm. Euh, jinni hmm. du lekk nit. dëmm hmm. mooy lekk nit. jinni dañ koy defal sacrifice. sant ko mission mu def ko. Ah. léegi ci biir def boobu nag dëmm yi mën na nañoo link ko ak jinni yu bon yi. Hmm. ñu defal leen sacrifice ñu daal di leen defal seen mission. moo mais nag pour nga tam nit aussi foofu lu graaw la. dëgg la da war a am matuwaay yi nga xamante ne moom ngay ràññee ne lii. ndax jinne moo ko dugg wala ndax moom ci boppam mooy dëmm waaye gis nit ñi nuy dem rek nga koy naan dëmm la c'est très grave lan mooy mandargaay dëmm tey ñu ne nii diw dëmm la lan la ñuy xool ci mu gis ko xam ne kii dëmm la lan la waaw parce que euh, mën na dem ci maamoon comme li ñu naan dem ci kuy ñaan ak kuy seet loolu tax ñu naan seet baaxut waaw xam nga seet bi mën na la wax ne nit ku xees ki nangam ngeen xeel benn nit xees foofu ngeen ne moom la. Hmm. ñu jëlee foofu ay firnde te fekkee loolu du raison. man li ma bëgg mooy. Hmm. en tant nit ki waxalul boppam. Hmm. ne man dëmm laa. wala jinni moo ma dugg. bu dee jinni moo koy dugg suy wax dañ koy xam. parce que dafay naan man maa ko dugg. man maa tudd jinni sàngam. dëgg la. man maa ko defloo lii maa ko defloo lii mhm. waaye nag bu fekkee ku ñu def saabu nag koo xam ne dem spécial la mhm. kooku moom lu mu rey moom day naan man maa rey diw maa rey diw maa rey diw kon daal fekk moom av defut aveu maanaam li tubaab di wax aveu maanaam fekk waxoon ne man maa ko def mënuñoo jàpp ne moom la mais yow nit sax pour nga nga xam nga yow tey fekkee da ngay faj loolu buñ ne indile koo xam ne jàpp nga ne dem ma ko yor boo ko xoolee war nga mën a xam ne mandarga yi dëmm moo ko yor wala amul loolu duñ koy. gis moom non non il faut que ma dem ci li may liggéeyee. ah d'accord pour mën ko xam xam nga mel ni nit bu feebaree nga indi ko hôpital. waaw eh, docteur bi. Hmm. dañu naan rek diw dafa feebar. Hmm. mu ngi nelaw yeewul mais il faut que nga def ko diagnostic pour xam exactement lan la. ñun hmm. nag bu fekkee nit ki dafa ñëw. Eh, ñu koy tooñ. bu fekkee am na fit. ñu tuumal ko. Mhm. soo ko ne nañ dem ci koromaak. Mhm. moom bu amee fit ñëw. Mhm. ma jël samay bagage mu nangoo koo suuru. wala mu toog ci néeg bi ñu taal ko saxaar si bu duggee. seytaane bi nga xam ne moo nekk si moom. di def tojaange yi. kooku moom day day day yéegul ndax. Eh, wax naa ko boo ko laajee ñoom Babacar yi wala ak seetal naa fi nit ne ko ëmb boo am mu dañ. ma ne ko ombu bi day sa jëkër moko ko def hmm? fekke dafa am xaj bu mu doon gént sa ay ko xaj bi maté ombu bi day hmm. ba ma ko waxee dafa gënë jëkër yi jëkër yi dëgër bop ñëw fi ma jël sumay bagage def xaj bi ko doon gént ci guddi gi mu yuuxu ci biir bi commencé fekk jabar ji daw bàyyi ko fi hmm? loolu wóor sama bay, barke sama bay, ñepp seede nañ ko lu mel nonu nak man nee naa la duma wax nit dem nga yow yaay waxal sa bop li ngay def yow yaa koy waxal sa bopp. yow da am lay def. après moom mu def aveu bi. mu def mu avoué. mu avoué mais pour seen nit ñi muy dem rek nga ne ko dem na loolu moom wóorut. dëgg la loolu moom nit ku baax sax waru koo def. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm.